réaction yi may jot. Mhm. le débat n'est pas équilibré. bon mais malheureusement comme yéen peut-être y' a pas de pour Oustaz Assane Diouf nekkoon ma relancer waat. Mhm. peut-être islam mais s'il le faut n'est pas équilibré. d' accord waaw d' accord ñoo ngi ñëw léegi ñoo ngi ñëw léegi bàyyil ñu may ñu ñëw ak euh, Fatou Binetou parce que euh, li ngay wax noonu euh, léegi ñu jox ñu ko internet direction yi ci am ñu jël maam Khady Diéry mais Fatou Binetou d' abord li nga ñu indil ñu bëgg nañ nga wan ko ñi nga xam ne ñoom ñoo di téléspectateurs yi. waaw xam nga chaque mercredi dañu taamu ñoom ñu waxtaanee wàllu société te dañu dugg ci weeru koor bi également tey nag ma indil leen comme dañoo dugg ci weer bi weer bi tombeek mu xaaj. ñu ngi ci diggu ji digg weer bi ku ne euh, xam ne ni fu mu nekk nii euh, kilifa gu nekk di père de famille wala mère de famille euh, sa poste dafa bënn jamono ji yem ak koor gi ak conjoncture nag bi ñu nekk nii mu métti lool ci ñoom. ak jamono ji nga xam ne tamit euh, daanaka gis nañ ni jafe-jafe yi ma ngi gën di yokk ngir Covid 19 bi ñu prox ndollu ci tamit beneen sujet ku ne weewu koor euh, début bi nii dinañ gis euh, depuis hier coppite yi ñuy gis ci mbedd yi. Mm-hmm. mooy ci colin yi yaa saydaa yi mel ni man bëri na lool ci mbedd bi mais dañuy dem seeti élément bi nga xam ne daanaka indi nañ ko te Mamou Dia Mamou Dia bi Gassama di sama naataango defaral nañ ñu ko. fanweer fan di jamono ba nga xamante ne julliti danañu toroxlu ngir borom bi subxanahu wa taala nangu seeni koor Ramadan Karim mi ngi yemokk ci jamono ba nga xamante ne weer bi sori na lool li mel tax na ba poos yi fekk ci lu bëri yombut ci borom kër yi. ñoo ngi en plein milieu du mois ma ci digg weer bi la ñu nekk donc euh, tàmmale weer koor ci digg weer bi du yomb aussi parce que comme ni ma la ko waxee ay dépenses la laaj. donc euh, fii ci Sénégal euh, comme ni ma tàmmee di wax ni fii dafa bëri ay chômeurs te chômeurs yi la plupart d'entre dañuy am jabar dañuy am seen jabar am seen i doom euh, chaque jour dañuy yeewu ci lu jafe et xam nga du lu yomb daal. weeru koor bi weeru dépense la waaye yàlla mi indi weeru koor yàlla moo ñu koy tëyal boppam du ñu jaaxle lépp dina yomb bu neexee yàlla ndax yàlla moo yor lépp. moo di lu ci gën bëri ci askan wi dañoo yaakaar ne ni koor gi bu nee salaamaaleykum dépense yi dana wàññeeku bu baax a baax waaye fii ci Sénégal li ni mel amut bool ci sax Ramadan Karim bi mi ngi yemokk ci jamono ba nga xamante ne nemmeeku nañu ni ci marché yi ni njëg li dañoo yokk parce loolu nag sa dépend de l' xam nga si l' état mal organiser souvent noonu lay demee. noonu lay demee ah tey. prix yi ci état la war a doon moo war a fixer ay prix nest pas mais bu fekkee ne le secteur est li est libre ah <laughs> comment on appelle la liberté commerciale képp ku mu neex jël sa marchandise jaay lu mu la neexee. laa ila wallaahi ñoom kay dañoo waroon wàññi lépp lépp lépp lépp. waaw dund bi kam dañ ko waroon wañ bu ñu wàññoon dund bi kam dana baax. riba lañ lekk ñoom kay nguur lañ lekk lekkuñ dara riba nit yi ñu ngi liggéey guddi bëccëg. métti na moom ku ko wax ak ku ko waxul dund bi métti na lu daan jar juróom léegi mu ngi ci cent franc. nit ñi sonn nañu. donte sax dëkk bi dëgër na lool sénégalais ya nga xamante ne ñoom lañ jot a sëqal ab waxtaan jàpp nañ ne rek ni amaana prix denrée alimentaire yi dana wàññeeku fan yi di ñëw ngir kenn ku nekk mun a am ab ndog bu mucc ayib waaye tamit am na la nga xamante ne ñëpp xam nañ ko ndaxte weeru koor bu xasee bu dugg si dana am coppite bu rëy ci wàllu po colin jigéen ñi danañu sellal di sol li yiw c'est normal bu fekkante ni euh, da nga dëkk ci di sol lu bon ñu mu leer la ni li ngay sol baaxul bu weeru ko dikkee nga war ko mën a wormaal nga nëbb say cër tuuti sax euh, ndax tey jii am na yenn solin yoo xamante ni boo ko solee euh, boo génnee non seulement di nga tooñ sa bopp mais góor goo romb bu xelam nekkee di nga ko tooñ tey tamit dinga yàqu yàq kooram. mais weer yëpp lañ war a wormaal en fait. boo nee musulman nga kay weer yëpp ngay wormaal parce que même su dul weeru koor sax dañuy dañuy sol ay yére yu normal. donc soxlawul weeru koor bi di ñëw ngay changé di sol ay jàllaabe fii di mooy loolu daal jaru ko daal je trouve ku nekk daal na nga mel ni nga meloon rek après nga jox borom bi lu mu moom. alors kon ñoo ko gisandoo mu nekk reportage boo xam ne bu am solo la Fat Bintou nga defal ñu ko ñu gis ne weeru koor bi dafay maanaam maanaam maanaam euh, euh, euh, dafa war a soppi jikko ak melokaan waaye gis nañu melokaan yi lay gën a sopp lay gën a lay gën a soppi. waaw daanaka nag tey ku dox ci mbedd yi daanaka fës na lool ay soxna yoo xam ne daanaka changé nañ seen seen colin mu mel ni dégg nañ ci reportage bi ñi nga xam ne ay ay jigéen lañu xam leen ni bu ñu sañoon du weeru koor amuk seen seen cër amaana sax dëgg la euh, am na yenn colin yoo xam ne doo woor ba pare euh, daanaka di di di ko sol ndax di nga tooñ sa boroom euh, di nga tooñ sa bopp ba pare tooñ yenn xale yu góor yi nga xam ne ñoom ngay ngay dajal ndax di nga di nga mën a waaw di nga mën a yàq li nga xam ne moom moo di seenu seenu koor ñu sàkku yi tamit ci colin yi ñu mën ko wéyal Euh, colin yi gën a gën a gën a rafet ndax daanaka ci 11 mois ci benn weer kott daanaka la ñuy gis euh, yenn ci colin yu yu yiw yi ba ci man mii euh, toog daanaka durant un mois damay respecté sol loo xam ne daanaka ku ma gis rek séen ma doo am lu dul benn envie ma wéyal li nga xam ne moom moo di colin bi bu ñu bu weesoo li ni mel ci biir reportage bi également ñu door li nga xam ne moom moo di weeru koor bëri na fii ñu fi nekk di Moustapha Cheikh tijan xam naa day jàmbat saa su nekk ku ne weeru koor ñu xam ne dépense yi dafay doublé wu ndax euh, ndogu bi daanaka lu ne nga ciy gis ci euh, ci ay waxtu rek euh, ci ay waxtu yoo xam ne daanaka ci la ñuy ndogu ku ne nekk ku ne dem tëddi mu mel ni nag père de famille également ak mère de famille déglu nañ leen ci reportage bi bi tey ñu xam le ni dañoo nekk ci ñu ngi tàmbali koor gi ci le le treize Euh, ci ñi njëkk euh, a njëkk a commencé woor euh, mu mel ni facture ya fay nañ ko mm. fay nañ li nga xam ne moom mooy jàngum gone yi ñu ngi ci année scolaire mu mel ni poos yi yëpp bënn jamono ji mu doon ay <laughs> jafe-jafe yu yu métti je sais pas si c'est vrai ou pas yenn ci ay denrées yokku na Euh, mais ñoom xam leen nañu ni euh, fu mu nekk nii euh, saa yu weeru koor jub rek dañuy gis ni prix yi ci lay gën di yokk loolee mën a doon tamit jafe-jafe ci ci ci ñoom ñu ñu xam le it tamit faw état di bàyyi xel askan wi ci jamono ji gis nañ Covid bi bëri na ay pères de famille yoo xam ne perdre nañu seen seen emploi ngir joindre les deux bouts doon na loo xam ne lu métti la ci ci ci ñoom boole ci génnee ci mbeddu ndakaaru yi euh, la nuit di nga xam ne Sénégal yi kenn dundul parce que dañuy euh, sëkkatoo jaaykatu cere yi jaaykatu euh, fonde yi mu mel ni ci weeru koor bii sax ñu bëri dañuy taaba taaba ci kaw taaba taaba boobu ñu dugg ci weeru koor ku ne xam ne weeru ngëneel la entraide bi dafay am ci ci ci ci ci biir ci biir réew mi mais daanaka doon na loo xam ne lu lu métti ñu sax Euh, kaddu yi nga xam ne nag askan wi bi tey euh, yëkkati nañ ko euh, nguur gi daan leen déglu déglu ñu ñun ñëpp parce que ku si nekk am na loo xam ne yaa ngi koy apporté sa sa sa biir kër ci ci ci weeru koor bi ñu oyofal daal sénégalais jafe-jafe yi métti nañ ñu ci bëri ci maître say laa koy wax ñu ngi bitim réew te si ñooñu la yaakaar gis nañ ni lay xew foofu ci yenn ci ay confinement ñu si bëri seen liggéey daanaka demeetul noonu askan wi nekk fii ci ñooñu la ñuy yaakaar ngir ñu mën leen yónnee ngir ñu mën see ndeku te bu dëgëree foofu fii tamit dafay dëgër te fii tamit daanaka lépp métti <laughs> d'accord d'accord Fatou Binetou kon ñoo ko dégg déggandoo euh, euh, Charles bu fekkente ne euh, maam Khady Diéry Fall pare na mu jox di tuuti ah, pareegul waaw bu paree nga def ma sëy pour mu jox leen réaction internet bi alors may wax le contingent xaar leen ñoo ngi ñëw tuuti rek ñu ngi ñëw léegi ci yéen ñoo ngi jéggalu bu baax a baax a baax xam nga ni débat bi demee la rek moom moo tax waaye ñu ngi ñëw léegi ci yéen alors benn question boo dencal ak euh, ki moom moo di Serigne Modou itam bi laaj Issa maire maire